قدمات سعادتي عند الإله الله لي ظهرت عند ذوي الملاهي لم ينحني عند ذوي الخمور سوى رضا باق لو أموري maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm sëñ Abdou Lahad maa ngi ko xam mille neuf cent ñoo ngi xamante mille neuf cent cinquante trois sëñ Fallou nu boole moo ñëw ci sëñ Fàllu ne ko man de bëgg oto lool te bañ ko lool ndax ki koy dawal sëñ Fàllu ne ko danaa la boole koo xam ne doo am dara ci moom lu la naqari dana lay dawalal oto bi dana lay dawalal lettre tubaab boo am dana la koy jàngal sëñ Fallu wooma sëñ Abdulaa toog ci suuf sëñ Fallu toog ci pliant bi ma ñëw mu na ma xam nga kii man ne ko déedéet mu ne ma Abdulaa la tudd sama rakk la ne sëñ Abdulaa xam nga kii mu ne ko déedéet mu ne mu joxoñ penku ne ko Alboury Alboury la tudd waaw ñoo moom Jolof mm. ñoo moom Jolof waaye man Alboury laay wax mm. xoolal dama leen di boole def ko ni sa bopp ba mu dem nga dem bi mu nu boolee cinquante trois ñu ànd tukki tukki réew mépp dañ daan wër bu bu buñ béyee ba waxtu traite jot ba tukki jot waaye musul génn Sénégal dim daan ñëw Touba sax du bari ndax tukki waaye Sénégal moom musu koo génn loolu daal benn yoon la génn tukki Sénégal muy yoonu Abidjan bi woo xam ne sëñ Falloo ko ci yebaloon boobu nag ku ñuy wax Dame Seck moo doon représentant murid yi ca Abidjan xuloo Côte d'Ivoire gépp booba booba nit ñi xamul xamuñu sax Europe Côte d'Ivoire lool murid yi tukki bari lool ba mu xuloo faraya nag ñëw wax ko xale yi ñëw wax ko sëñ Fallu na ko nun kët jubootunoo Dame Seck danoo bëgg nga wutal nu keneen dañ fàllu na leen yéenay tànn ci seen biir ku ngeen bëgg ñu ne ko ñun Serigne Niass lañ bëgg Serigne Niass mi ngi dëkk gaawaan yi ci Mbàkke woo Serigne Niass wax ko ko ne leen nag danaa fa yónnee ñu dindi daam sekk teg fa Serigne Niass dal di woo ku ñuy wax Bamba Gueye taalibe mi ngi doon liggéey gouvernement général booba réew mi dafa am gouvernement du Sénégal ak gouvernement général yónni ko ca Bamba dem fa ba yàgg fa munu ca dara mu dellu si na sëñ Fallu mais mbir day mënuma koo lijjanti ndax daa moomoom fa nekk jaxasoo naa tubaab yaa gouvernement ba nga xam ni dindi ko fa du yomb dañ fa ne ko danaa fa yóbbu yóddi koo xam ne kii dana ko dindi ci saayir mbaa mu dindi ko ci baat dal di woolu sëñ Blaat dal di ko koy wax ñu dem dem mbooloo mu bari la fi leen duggee express ba Bamako Bamako am nañ fa fukki fan koor la ñu woore ko fa bañ fa jógee dañoo dugg oto ñëw ñëw booba jolaasu fanaan fa otoraay ba jógee ñëw jëlnu ñu dem Abidjan ci gàttal Abidjan weer lan fa am sëñ bi gis na gouverneur gis na directeur sûreté directeur bi sûreté tubaab la sax ban ko gisee daf ne man di sëñ Fallu sama xarit la maa nekkoon commandant cercle Louga mayoon na ma fas bu baax ñu ñu jox na oto ñu wër réew mépp weer ñu dindi ko teg fa Sëriñ Ñas ñu ne nag nañ ñibbi bi nii ñibbi jaar fi ñu ba ñëwaat ba Bamako sëñ bi jox bagage yëpp mbooloo mi na leen dellu leen maag sëñ Mbay Ngom mii ak sëñ Aliou Ndiaye dañuy jaari Conakry ah sa ab seex moom sëñ Fallu mu mag ñu daal di dugg oto ñëw kànkan ah, ñëw ñëw ñëw sigiri sigiri biñ ñëwee fekk bag ba wàcc biñ ñëwee sigli bag la danoo fekk bag ba wàcc ñu fanaan fa fanaan ba xamunu fa kenn dant bi sona danoo lal rekk suñuy sajaata ci perong yi tëdd ba bët set perong bi ñu fanaan ndeke <coughs> doomi sëñ Baara ju jigéen mi ngi fi boroom këram procureur la ñoo nekk ci kaw min xëyee suba teel ñu door noo yëg defal nañ ndékki oto bi taxaw ñu jóg ñëw kankan kankan biñ fi ñëwee xiif lool ci xamuñu fa kenn am fun dali ban fa demee kooko euh, soxnaam rek lañ fa fekk te soxnaam euh, néew doole tëj bi nanu nan dem siyaare ji Cheikh Fanta Madi ndax wala rek sëñ Fallou la waaw ñu ànd man ak sëñ Mbaye Ngom ñu dem siyaare ko fekk ñu déedéet boobu dundut bi ñu wàññeekoo ñoo ngi xiif lool yàlla dogal ñu daal dox tuuti rek dara sëñ Moustapha Gaye soxna sëñ Moustapha moo soxna Maguette Gaye ñoo bokk ndey ak baay kàbbal la dëkk jóge woon yegg kenn xamatut fu mu nekk nekkoon CFA di wut jama ba mu yàgg mu dellu si kànkan kaseeg noonu ba mu gisee kaseeg noonu rek dafa waaru sëñ bi waaru mu ne sëñ bi kañ ngeen fi ñëw ñu ne ko léegi fu ngeen dal ñu wax ko ñu ànd moom ba fan dal mu dellu ba mu delloo dal di nuy indil añ boo xam ne maar reetaan ñu añ indi reer saxaar gi ñu war a dugg nag dem Conakry six heures du matin lay départ six six heures du matin ba nu duggee ci saxaar gi ba huit ci guddi lan ak si Conakry fekk nan mbooloo mu bari di nu teeru jox baara jox ma portele be ñu ñu dalli kër ku ñuy wax Serigne Diagne chef de gare ba la woon taalibe Serigne Gaawaan waa Thiès la xaw ma fonctionnaire yi dañ leen di affecté la woyof yëpp fu leen neex ñu affecté ko këram lan dal boobu sëñ Abdoulaye te ngi nii maa ngi nii ñii ay doomam lan kii tailleur la lu sant loolu moom lan fa fekkoon moo nu doon interprète di wax ak euh, euh, nun euh, dafa déggoon laaj ki réew ma fu ñuy dem ñii doomi ñan lañ. doomi Ousmane Diagne doomi kenn ki mooy procureur Ousmane Diagne léegi. Hmm. Hmm? kii mooy procureur Ousmane Diagne. waaw waaw ki ci des rakkam la moom itam ingénieur élevage la. léegi nag ñu am fa fukki fan. Conakry. Hmm. ñu ne nan ñibbi nag. ñu ne luy dem ñu ne avion day dana gont tey sëñ bi ne man de du ma dugg avion waaw mu ne man duma dugg avion sëñ Mbay Ngom ne kon nag man naa leen jiitu ji ñu dal di ànd moom ba aéroport ba dugg avion bam mu dem ñu si ñu ne suba am na bato buy ñëw bu tudd Fogol mu ngi jógee Pointe Noire jëm Bordeaux day jaar Dakar. waaw léegi nag ñu dem defaroon na suñuy visite bato bi ñëw ñu dugg première classe bato première classe bato tubaab yoo lu nu neexee lu nu rafeti kenn mësu koo gis. néeg bi nekk lekk gi. ñu toog tuuti ab tubaab jaar ci buntu néeg bi yore waaye di yëngal ko. sëñ Abdoulaye ni ma loo loo la. man na ko day woote reer mu ne ma nan reeri biñ ñëwee ba ci bunt bi pour génn mu bëgg mu jiitu mu bomax ma ne ma jiitul yow mi fi xam ñoo <laughs> ma jiitu ñu ngi bind fi nii reere capitaine baa ngi taxaw ci bunt bi ku ñëw mu sàlli la nga dugg biñ ñëwee ba ci bunt bi mu xool fi ni reere ni mu yaatoo weex tag gisuñu fi benn nit ku ñuul tubaab bi kese mun na ca kaw la ilaha illallah yàlla bu ma lekkee fii dal di wàññeeku waa xuuti néegam ma topp ci ba ma demee mun na ma demal reeri te boo demee lu la laaj lu may lekk nee leen ay doom rek ak limonade fruit ay doom rek ak limonade bi ma ñëwee capitaine bi mu dégg na sëñ bi wax xamagun ma ñëw mu daal may làkk na ma kee ce type là que mooy ko c'est le fils de Cheikh Ahmadou Bamba mu ne ma qu'est-ce qu'il a dit man a dit qu'il ne mange pas ici mu ne ma lu mu bëgg noo wax ko ñu ko koy yot daal ànd ak man ba ca néeg ba ne ma bouton bi boo ko bësee nit dana ñëw lu mu bëgg ñu jox ko ma ne ko ay fruits rek la bëgg ak limonade may reeri di añi di ndékki lal bi sëñ bi tëdd am na lal ci suuf ma ciy tëdd mu jékki-jékki palanteeru lal ba mu ne ko weset la rek mu ne ko bët ubbi mu ndox mi na ma luy mën a mbàkke mu ne ma kaay xool ma ñëw mu ne ma fii la sëñ Tuubaa sànne woon der bi ci géej gi ndox mi gi wet bëla kii wet weex loolu de maag moomu ko gis. billaahi waxtu. te boobu bato baa ngi daw. waaw bato ngi daw. parce que boo ubbee lépp ci néeg bi doo doo gis neexee doo gis dara ba ubbee kii rek gis loxo. xale gi waaw mu ne ma fii la sëñ Touba sànni woon der ci géej. dama ne. lal bi mu tëdd mu ngi toll beneen palanteer boo xam ne boo ne nii rek mu ubbeeku am na lal ci suuf ci laay tëdd mu jékki-jékki rek lu kulbet palanteer bi jàkkaarloog ndox mi miin géej gi ndox mi weex fii wet weex ci wet ba mun ma lii ma na mbàkke mun am xaay ma ñëw mun na ma xoolal fii la sëñ Tuubaa sànneewoon der bi ci géej loolu loolu mooy doon suñu yoonu géej ba bato bi ba bato bi ñëwee nag Dakar lañ wàcc daal di nun dugg oto ñëw Touba loolu moo doon yoon wi biir réew mi waaw kii hmm. waaw tukki yoon daan ànd hmm. mooy moom da doon def ne u salaam buñ fob daara yim amoon moo doon daaru salaam bokki barka moo ci gënoon a mag ak mbaraan fi ci wetu waaw mbaraan jeng ak kàbb amoon na daara sax bay ci jàgg yi ci kër bay abdoulaat ka abdoulaat ka waaw bay ci jàgg daara moom ah bayti ja bayti ja danoo sant kaw bayti ja la dëkk ba tudd ah, ah, ñu bëri ci dongo yi sax ci këru bay sëñ Abdoulaat Ka lan doon nekk daaram ja moom ay juróomeer juróom-benn rek yàggut waaye foofu moo doon daara yi yi gënoon na mag dan def nag bu traite bi taxawee ñu topp réew mi di tukki liggéey bi mbaakol bu mbaakol jeex ñu dugg Kajoor ba mu jeex danañ dem Dakaaru danañ dem ba Tamba waaye taalibe dafa amoon ci taalibeen yi nag taalibeen yu mag yoo xam ne yi ñoom bu traite bi taxawee ñoom rek bu ñëwee ci addiya ñoo mënoon a joxe addiya fukki junni booba fukki junni jafe na ku ñuy wax sëñ Mor Seck ëntal guna ci kër sëñ Mor Seck daana ko joxe ku ñuy wax Bamba Souran ca Ndar daana ko def ku ñuy wax Abdou Karim Fall ca Kébémer ñooñu mu mënoon ku ñuy wax Biram Jeng taset la nekkoon jigéen la di fa def commerce gannaaw bi mu taxu si eh, Thiès am fa restaurant ñooñu ñooy taalibe ñi nga xam ne woon yooyu jamono mën na noo joxe loolu ñi ci des danañ joxe ay fës joxe joxe dongo joxe yeneen waaw boobu noonu lañ daan tukki. demal nga topp bi jaaroon nga a yaa ko déedéet fekk na mu yewi ma hmm, yow ban année la yewi man mille neuf cent soixante la ma yewi may ma oto hmm. may ma kër dugal ma ci gouvernement bi ñu affecté ma Ziguinchor hmm. ma jóge fa ñu affecté ma Gossas ma jóge fa ñu affecté ma Linguère bi mu nekkee xalifa laa dellusiwaat fii mbakk nekk agriculture. di dem nag oh, dem nag te tool yi di yóbbu euh, yi agriculture li tool yi ñu soxla ci loolu yëpp ci agriculture. Mm-hmm. waaw. waaw ñoo ànd mm-hmm. bi mu nekk fu mu mën nekk rek. Mm-hmm. waaw bi bi daanaka ci ay kiibaan. bëgg ñu ñëw ci yooyu ci ñooñu waaw boo ñu doon wax mooy waaw mooy kan. waaw Sëñ Abdu mooy kan li ma xam ci moom. Mm-hmm. ku dëgër fit la. ku bëgg alxuraan. ku bëgg ay xasaayit. Mm-hmm. ku tabe. ndax daane wax ne daanaa gis mu amee lenn rek nit ñëw fu mu jox ko toog mm-hmm. daana wax ne alal ju bëri joo xam ne jii bari ci man bu ma at bañ ko attan ko ba ñu jox nit jooju alal yàlla bu ma ko yàlla may kéemaan itam bari na yoo xam ne doon nañ ko ci dana koy def ma fekk ko am na benn bés ñu jóge Daaru Salaam ba Kibarga war ñëw tuubaa mu yem dimanche bi bésu élection ñun xamuñu woon sax bésu élection la mu ne ma dama bëgg ñu jaari Gosaas dama soxla Ibrahima Thion ñu jaar si Gosaas marché Ibrahima Thion day jaay guro ca marché ma ma taxaw ci buntu bi woo Ibrahima Thion wàccut mu wax ak moom ba noppi nan na ma nan dem ñuy ñuy génn Gosaas rek ay sànq la ma alaytam nanu tey am na sa autorisation ma ne ko aw oh, mukk de mu ne tey bisu élection la balaa kenn génn da ngay am autorisation ma ne ko fun ñu koy ñaane boobu dañuy door am am indépendance boobu waxaguñ préfecture mu ne kër commandant ñu ñëw kër commandant bi ma tourné commandant baa ngi toog ci peron bi ak adjoint bi ak ab garde ma ñëw ba tourné delluwaat kii dal di wàcc ñëw ku ñuy wax Lamine Lo booba mooy commandement bi sëñ bi wàccut de mi ngi toog rek man ne ko man de damaa ànd ak sëñ bi ñu jógee tool yi di dem Touba ah, bëggoon autorisation Lamine jóg dugg ci bureau bi defal autorisation bi jox ma laajuma kan la kat ma ñëw départ sëñ bi ne ma kooku mooy kan man ne kooku de mooy commandement bi mu ne ma kooku de dana nekk gouverneur ñu ñuy dem ba histoire Senghor ak Mamadou taxaw mhm. ja mhm. ñu ne ñoom Lamine Lo ak commandant de cercle yi àndoon ak Mamadou Dia daal Senghor na leen ku ci tuubut daal dina la wàcc mhm. fekk man yàlla dogal ma ñëw Gosaas sëñ bi yewee na ma boobu ma ñëw Gosaas Lamine loo xaritam nga xam ne mooy payeur bi sama najaay la Lamine loo di ñëw di waxtaan ak moom ne ko man day du ma maa ngi ci saal bi toog di tëdd di leen dégg du ma tuub fenn bu yeboo ñu wàcc ma ah, moo ma jóg toog na ko yow ngay nekk gouverneur. waaw. mu ne ma nga ne lam ma ko gouverneur ngay nekk nett li ko lii moom sama najaay je tijaan la ñu toog ba yàgg ñu nommé Lamine Lo directeur ONCAD toogaat ay fan nommé ko gouverneur am na bu kéemaane nit boo xam ne ci Abdou Karim Fall la Abdou Karim Fall du xam ngeen ko amat waaw amat Fall ma jéeme bàyyam kajoor yëpp moo fi ëppoon alal kajoor gépp dëkk bu nekk am dafa amoon euh, kër entre temps tubaab yi di ko jox xaalis Abdou Karim nag nekk kër gi ca Kébémer teel a jébbalu ci sëñ bi lool teel a jébbalu ci sëñ bi lool nga xam ne moom bëri wutoon ay wax lu muy def daf koy def ak sëñ bi rek am at moo xam ne nag dañ faa ñëw mu ne sëñ bi day tubaab yi nee nan kër gi dañ koy nangu si bi bàyyam gaañoo ndax kër gi da koo tay kon nag dañ koy nangu si teñ ko baa baax na ñu dem bàyyi noonu tubaab yi waxaatuñ dara ba ca déwén ñu ne sëñ ñu sëñ dem kàbb tool ya te dañ koo bëgg a koy deq ji te dama faa santaane liggéey bu ëllëgee lañ koy deqi mbooloo mépp danañ fa daje bi ñuy ñëw nag ba ndànd diggante kàbb ak ndànd moom oto bi day fees da lañ nit ci gannaaw maa ngi moom rek ci kanam mu ne bu ma wàccee rek bu ma wàccee rek ba ngay tourné di gaare rek demal Kébémer demal la yónni ci Abdou Karim boo demee na ko sëñ bi nee na dañuy déqalu tool yi suba mu dimbali ma ci añ bi fekk Abdou Karim na fam tubaab bi soññ nañ ko lool war a nangu si kër ci xamut fu mu gisee sëñ bi ndax sëñ bi dañ tukki ca téléphone boobu kiwut mu mu jaaxle lool ma départ bi ma Abdou Karim seenee daal dafa waaru ma ñëw gaare mu ne ma ana sëñ bi ma ne sëñ bi de ngi kàbb léegi lañ fi agsi dafa wàcc rek ma wàññeeku damaa yónni ci yow dañuy deqi tool ba suba nee na nga dimbali ko ci añ bi mu ne ma sëñ bi daal fu nekk wër naa ko xam mënuma ko léegi daal tubaab yi nee du am sax ñaari fan ñu fab kër gi. ma ne ko ah mu ne boo demee daal waxal ma sëñ bi loolu daal di may jox saako ceeb booba ceeb cent kilos la ak junni solal ma essence booba booba essence yi bitig yi ñooy am poste essence nii rek ci bunti nga xam ne par juróomi litre la ñuy pompé soloon ma essence ma ñëw wax loolu sëñ bi sëñ bi saafara jox ma dama dellu jox ko mu suñ ko saafara sa soo si day ko fa Abdou Karim Seye tey ca la jóge li nettali naa ko ay doomu ñu wax moom nag moom nag buñ ma saa ànd ba jamono sonn ba sonn ba jamono jooju nekk jamono nga xam ne man euh, dafa may métti daf may wax yow de dib ceddo rek te booba ñëpp a ngi fi kat mag ko man balaa yàgg àddina bépp nekk ci sama loxo balaa yàgg àddina bépp nekk ci sox kon nag diggante bi danaa fi am ay norto jaar jaar boobu sëñ Fallou ngi fi sëñ Bassirou ngi fi sëñ Ibrahima Mbacke ngi fi sëñ Abdoulaye ngi fi. waaw moo doon sama sëriñu baay jëmbaloogu ma woon fenn kee moo doon sama sëriñu baay mu nekk waaw yéen yéen jikko nga nga nga gis ci moom. waaw mooy jikko yi ma la. ah li ma roy ci moom. li ma roy ci moom. Hmm. ku dëgër fit la. ku bëgg alxuraan. Hmm. ku ku ku ku tabe.